ci yile kàddu la groupe Walfadjiri amale tey seen toogaayu ñaxtu ngir rek ñu bàyyi kii di Cheikh Bara Ndiaye di chroniqueur foofu ca groupe bi. tey nag euh, benn sans voix la ñuy xeexal te sans voix boobu muy Cheikh du sans voix bi nga xamante ne mënalul boppam wala amul fu waxee sans voix la ndaxte pexe état. jàpp nañ ni rek li ko fa bàyyi pexe nguur bi la. biñ ko jàppee dañ ne woon dañuy bàyyi euh, justice daf liggéeyam. bi ko juge bi convoqué ba jox ko liberté provisoire. dañu gis ne procureur de dafa opposé wu loolu ne lii nag état la parce que procureur de patron mooy ministre de la justice ministre de la justice patron mooy président de Guy Marius bokk ci ñi fa teewoon di xamle rekk liñ ko jàppee teguwul ci yoon kon Cheikh Bara kenn toppee wu ko loolu li ñuy toppee Cheikh Bara Ndiaye ñu wax ko mooy Cheikh Bara dafa ñëw fekk askan wi fekk ñu ñun mu nañu xam leen ne lii ngeen jàpp du loolu lii am mooy Sénégal dañ koy noot alal bi li ci ëpp di dem bitim réew ak suuf bi fi des ñoom ñu sàcc ba mënuñu dab suñu bànneex. Cheikh di PDG groupe bi di ñëwaat ci lu ñu fas yéene def suñ ko bàyyiwul. donc nañ libéré Cheikh Bara nu mu gën a gaawee suñ ko deful nag Sidy Lamine jox nañu ndigal moo ñu def marche vers le palais donc ngeen continuer suñu combat. li ni mel moo warala tey sitting bi nga xamante ni groupe Walfadjri amal na ko ci seen biir locaux yi ànd ci ak ay leader yu bëri di exiger nguur gi mu bàyyi kii di Cheikh Bara Ndiaye ak yeneen déteni politique yi comme ni niñ ko waxee ci fàttali Cheikh Bara Ndiaye yoon teg ko loxo ci weeru juin bi passé ndax appel à l'insurrection